Euh, mbokk mi ñu bokk yàlla ñu ngi lay nuyu di la ziar euh, bayit yi nga ma envoyé di sàkku ñu leeral ko mu ngi jóge ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi ko dénkoon benn doomu bàyyi taxam bu ñuy wax soxna Penda Diop ñu tudde ko wasiyatu soxna Penda Diop Serigne Touba di ko fa dénk ay ndénkaan yu am solo yoo xam ne bépp jigéen war na ko déglu war na ko jéem a xam déglu ko dégg ko te topp ko te jëfe ko ba ci sax góor ba ci sax góor ñi ndax lépp yàlla la lépp lu baax la lépp yonente bi la lépp lislaam la Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu wax soxna Penda Joob na ko alayka bis sabri wa taqwa rabbiki rabbika wa rabbiki fi sirri wal fi sirri wal fa yaxfira laki mu ne ko aleyka maa ngi lay dénk bi sabri ci muñ wa rabbiki ak ragal sa boroom fi sirri ci lu nëbbu wal jahri ak ci lu feeñ fa kon yaxfiru laki kon de suñu borom tabaraka wa taala dina la jéggal fa fa kon lay teg fa yaxfira laki kon day def na la jéggal yàlla dana la jéggal sa boroom dana la jéggal alayka maa ngi lay dénk bi sobri ci muñ wa taqwa rabbuki ak ragal sa boroom fi sirri ci lu nëbbu wal ak ci lu feeñ fa kon day yaxfiri lakki kon day suñu boroom tabaraka wa taala dana la jégal wa yaxfira lakki la jégal mu koy mi ngi dénk soxna na ko na muñ waaye na ragal yàlla ci lu nëbbu ak ci lu feeñ maanaam soo wéetee ba jàpp na yow rek yaa fa nekk na nga ragal yàlla waaye soo wettali koo ci biiru nit it nga nekk fa ak nit it na nga ragal yàlla ragal yàlla ci biir sa xol bi bu ci xalaat bu ci xalam bu ci dugal lenn lu suñ borom subhanahu wa taala waaye li feeñ ci say cër bu ci moy yàlla bu ci dugal lenn lu du suñ borom tabaraka wa ci dugal suñu boroom rek tabaraka ñu ngi ci dugal yàlla suñu borom rek tabaraka wa moo tax mu ne ko maa ngi lay dénk ragal yàlla ak muñ ci lu nëbbu ak lu feeñ soo ko defee day fa yaxfiru laki suñu borom dana la jégal yow soxna Penda Diop duumi ala tawbati bi ijtihaadi wala tamili li siwa rashadi nu ko duumi na nga sax ala tawbati ci tuub bi ijtihaad yi ànd ak ak farlo nag bu mat sëkk wala tamili bul jeng mukk li siwa rashadi lu dut jëm ci ak njub lépp loo xam ne dafa wuute jub bul jeng jëm ca foo toll rek na nga jëm ca am jub duumi na nga sax ala tawbati ci tuub foo toll del tuub di dellu ci yàlla wa anibu ilallahi na ngeen dellu ci suñ borom tabaraka wa taala tuuboo ilallahi tawbatan nasuuha moo tax mu ne ko duumi ala tawbati bi ijtihaaji na sax ci tuub te nga farlu wala bul jeng mukk li siwaa rachadi jëm ci lenn loo xam ne du ak njub duumi alal xumuuli wa tasatturi wal taxfidi sawtiki dëhra tush mu ne ko duumee na nga sax alal xumóoli ci muuraay ci giim rek maanaam muur noppi muuru defar say cër alal xumóoli ci nga di muur soo yaram daal maanaam musuuru ximaar maanaam na nga sa yaram na nga muuru wa tasatturi ak suturaal sa yaram wa taxfidi te na nga wo nanga suufeel na nga suufeel sawtiki sa kaddu jigéen wërtu wax ci kaw kon yow soxna Penda Diop na suufeel sa bi ci suuf wal taxfidi sawtiki na ngay suufeel sa kaddu jigéen dafa war di wax ndànk dëxërën nag diirub jamono la ko wax diirub jamono dëxërën fekk yaa ngi nekk ci àdduna feeg yow sa àdduna mi ngi mi ngi existe yaa ngi dund feeg yaa ngi ci biir jamono na ngay wàcce sa kàddu te ngay muuru di suturaal sa yaram dëxëra diirub jamono waaw soo ko defee day tushkur yi def na la sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala dana la sant ñëpp ñu baax it dana la sant waaw mu ne ko duumi alal xumuuli alal qumuuli wa tasatturi wal taxfidi sawtiki dëhran tush taskuri maanaam taskuri dëhran taskuri wala tuskuri maanaam na ngay muuru te ngay suturaal sa yaram te ngay suufeer sa kaddu su ko defee day diiru jamono def na la sant ngoog def na la sant diiru jamono mu ngoog mu ko laa tanzuri maa dum maa xayyatan ila xayri la si tahlilu tahliluhu qadin jala allahu akbar mu ko laa tanzuri bul xool mukk maa dumta xayyatan feeg yaa ngi dund yow soxna Penda Diop ila xayri la ci lu dul la nga xam ne tahliluhu ak daganam xaddit njalaa feeñ na nee na ko bul xool mukk duuru diiru jamono lu dul la nga xam na loo dagan la allahu akbar qul lil mumin baada ausbilah min alquran mi ngi ñuy wax naan qul lil mumin qul lil muminin yaquddu min absaarihim wa yaxfazu furujuhum wa qul lil muminat yaqududna min absaarihinna moo tax mu ne ko laa tanzuri bul xool maa dumta xayyatan feeg yaa ngi dundu ila gayra lazi lu dul la nga xam ne taxliilahu ak daganam day xadin jala feeñ na yow daal yow soxna Penda feeg yaa ngi dundu bul xool lu dul loo xam ne xool ko dagan na allahu akbar mu dëppoog ayab alquran boobu suñ boroom di wax ne yéen way gëm ñu góor ñi na ngeen di gëmm seeni bët ci lépp lu xaraam waaye yéen way gëm yu jigéen yi it di gëmm seeni bët ci lépp lu xaraam allahu akbar mu ne ko wajtani bi alxiibata wa takabburi wa asbati assukuuta wa tasabburi bismillah wattani bil xiibata nee na na nga wattandiku jëw baaxut wa takabbura ak rëy-rëylu wa asbati te na nga saxal a sukkoota noppi wa tasabura ak muñ yow soxna Penda Diop ak bépp jigéen bu mel ni yow ak bépp góorit nag ndax ñëpp ko mën a bokk wajtani bii na nga wattandi ko alxiiba jëw yoon di salaa salaam ci addis bu wér ne benn baatab jëw wecc na fanweeri yooni njaaloo alxiibatu ashadu min salaasina zaniyan yoon di salaa salaam ci addis bu wér ne benn baatub jëw wecc na fanweeri yooni njaaloo ngay njoala wax ba muy weeri yoon benn baatub jëw wecc na ko kon jëw bon na de yaa ngi ci yàlla moo tax mu ne ko wattandi bii na nga wattandiku alxiibata jëw wa takabbura ak ak rëy rëylu jigéen dafay woyof ba mel niw dàll aw dàll woyof moo ko bàyyi cib tànk waaye bu matoon ay kilo kenn du def foo jëm jëme ko fa jigéen dafay wala ba dafay woyof ba mel ni musóor ci bopp ak musóor ci bopp woyof ko ca ba su matoon ay kilo rek kenn du ko fa mën a teg moo tax jigéen dafay woyof waaye jigéen ju rëy musi wala baaxut jigéen ba xasee rëy rek duutu mën a am ngërëm ndax lépp lu mu war a defal borom këram rek da koy rëy def wa asbat yi nee na na nga saxal as sukkuuta noppi foo tool del noppi wata sabura ak di muñ foo toll ngay muñ ndax inna allaha maa sabirina yàlla wax na ci alquran ne man maag woy muñ ñoo ànd ndax jigéen sëy dafa metti jaamu yàlla la néexut soo munta muñ woyefoo doo ko man moo tax mu ne ko nanga sax ci muñ waaye nanga nga woyof bu rëy rëylu te nanga nga nopp bul jëw mukk sa wujj bul jëw sa wujj de bul jëw keneen it ku dul sa wujj saxal ci maandu ak jub ak noppi ak muñ ak wàcce sa kaddu mu ne ko waccandi bil kaziba na nga wattandiku kàcc fen fenn baaxut yonti na ci hadis bu wér na nit ki su fenee fen wa day naaw ba arash naan ana kisbatu fulanin ana kisbatu fulanin ana kisbatu fulanin fen wa day naaw ba aras naan man de maay fenu diwwa man de maay fenu diwwa man maay fenu diwwa su ko defee aras dafay dafay rëng-rëngi su ko defee ñu bindal ko lu toll ni limu jëmm yi wala limu bët yëpp ñu bindal ko ko ci ay bakkaar addadul nii ñu bindal ko ko ci ay bakkaar yàlla ñu ci yàlla musal kon fen baaxut waaw ah, war yaa ah ak njistal mu ne ko na nga wattandiku njistal lu gën a bëri ci jamono muy njistal di def li ngay def te jubluwoo ci jëmmi suñ borom waaye danga caa jublu ñu tagg la ñu gis la yarauna nas wala yaskuruuna allah illa qalilan muzabzabina bayna zalik laa ilaha ulaay wala ilaha ulaay di njistal ci nit ñi rek bëgg ñu gis la ci wax ak ci jëf ak mu ne ko yow soxna Penda Diop da nga fexe ba bul njistal war riyaa ak njistal wal ba ak yéem jëf maanaam aaw muy yéem jëf loo def rek nga gis ko loo def rek nga yéem ko nee na bu ko def na ko wattandiku moo tax wa rubbama ibadatun kasira qad afsadat ha lahzatan xaqira la sëñ Tuubaa radiallahu taala anhu sëriñ Tuubaa nee na jëf ju nit jëf mu réy lool jëf ju bëri lool te benn genneeku rek ñëw mabbu jëf ja benn genneeku boo ko yéem rek nga yéem ko wala nga gis ko rek jëf ja yàqu kon di jëf ju bëri yàqu na wa sumaatu ak déggatulu déggatulu déggatulu li ngay def bi nga koy def kenn gisu la yow dong ak yàlla nga fanaanee julli ci néeg bi ba fajar fanaanee wérda ba fajar fanaanee jaamu yàlla ba fajar fanaanee def lu baax ba fajar nga xëy dem ca garab ga ne biig de damaa fanaanee julli nangami rakk biig ne dama fanaane def nangam wala nga def lu baax ba nga koy def yow képp ak yàlla nga génn man de bii def naa nangam ak nangam di ko déggtal nit ñi pour nit ñi dégg ko yow Penda soxna Penda Diop bul def loolu ak bépp jigéen bu mel ni yow ak gépp góor gu ko dégg wa sumaat ak déggtulu wal baxdaa ak mbañeel bul bañ kenn bëggal ñëpp ci yàlla tax al baaxut mu ne ko bul bañ kenn bëggal ñépp yéeneel ñëpp jàmm di waxal ñépp lu baax wa xuuloo li naasi xusna mu ne ko wa asbiti sidqa deel sax ci dëggu dëggu dëggu na wax ji dëggu na jëf ji dëggu na lépp dëggu waaye maal al ixlaas ànd ak ak sellal gu mat sëkk ànd ak ak sellal gu mat sëkk ma al ixlaas yi ànd ak ak sellal gu mat sëkk maanaam li ngay dëggu looy def na dëggu te soo koy def na yàlla rekk tax mooy ixlaas ixlaas du jëmm ju set du ragg sa yaram yi ba mu set rek wala yére yi set waaye ixlaas mooy lépp looy def na yàlla tax def ko xaalisatan li waj illaahi ngir jëmmi suñ borom ji tabaraka wa taala képp bu ci leneen bokk bu ca boole keneen bu ca boole leneen na jëmm yàlla ji tax loolu mooy tax jëf ju tudd al ixlaas muy jëf joo xam ne jëf ju sell la moo tax mu ne ko wa asbiti sidqa na nga saxal dëgg na nga sax ci dëgg wa asbiti na nga sax as sidqa ci dëgg ma al ixlaas ànd ak ak sellal gu mat sëkk wa nusxa ak ak laa koo gis ca mën koo laa biire ci yàlla taxit nga def ko waaw soo ko defee day tasfar tasfar yi da nga kiilu da tuufu danga nga kiilu da tuufu mooy da nga am bonus bu rëy rëy rëy rëy allahu akbar bil ixtisaasi ci ak jagoo ci ak jago ak jagoo bil ixtisaasi ci ak jagoo danga am jagleel bu rëy goo xam ne yow yow yow la ko suñ borom tabaraka wa taala di jagleel ci lii ma sant su fekkee ne def nga ko allahu akbar mu ne ko yow soxna Penda Diop ak yéen mbooleem jigéen ñëg bépp góor bu koy dégg wala taruumi bul sàkku taatallahi topp yàlla bila taati saw jika ci lu topp sa jëkkër ngay topp yàlla te doo topp sa jëkkër nee jigéen lum mën a jaamu-jaamu-jaamu yàlla boo dàqoon a jaamu yàlla ba dàq julli-julli kaatu dàq woor kuy woor te doo topp sa jëkkër boo dee doo dem àjjana laxaraaf ngay dem waaye doo dem àjjana doo dem sawara de waaye doo dem àjjana laxraaf ngay dem moo tax mu ne ko wala taruumi bul sàkku taatallahi topp yàlla bila taati saw jikki ci lu topp sa borom kër attaqi yi waaye nag bu ñuy wax topp borom kër nag attaqi yi mooy borom kër bu ragal yàlla zil ola yàlla mi nga xam ne mooy borom kaw ga waaw azawjatu ak taqiyi borom kër bu ragal yàlla mi nga xam ne zil ola mooy borom kawe ga moo tax buñ lay topploo sa borom kër yi mooy topp ku ragal yàlla ndax soo toppee koo xam ne ragalul yàlla da lay digal loo xam ne ak mooy yàlla la te soo ko ca toppee ñaar yi nay ànd dem ca safaan ba moo tax sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala wax soxna Penda Jóob mii ne ko wala taruumi bul sàkku taatallaayi topp yàlla bilaa taati zawjikki ci lu du topp sa boroom kër ak attaqi yi ki nga xam ne dafa ragal zil ola borom kawe ga muy yàlla allahu akbar mu ne ko wal taalimi na nga xam yow soxna Penda jóob ak mboolem jigéen ñi mel ni yow ak ba ci góor ñi sax de ana jihaada niswati naka jihaarug jigéen ñi mu ne ko yow Penda soxna Penda Diop xamal na ko jihaarug jigéen fii taatil azwaaji mi ngi ci ñu topp seeni boroomi kër doona miryatin ci lu ci lu dul werante ci lu werante ci lu werante waaw ci lu werante waaw wal taalimi na nga xam yow soxna Penda Diop ana jihaadan niswati naka jihaaru jigéen ñi ñu ne ko ha mu ne ko fii taatil azwaaji mi ngi ci ñu topp seeni jëkkër seeni boroomi kër bila miryatin ci lu werante jigéen lislaam sant ko muy jël jaasi dem di xeexi ba xeex di am waaye mu ne ko jihaaru jigéen ñi mu ngi ci ngeen topp seen boroom kër yi moo tax jigéen ñi mosoon nañoo def délégation yónni benn jigéen ci yontu bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sahaba rijaalul xayri kull góor ñi di dem ñoo yiw ya ñooy jël seen alal di dem ci toole xare yi di joxe seen alal ñun nag duñu dem ci toole xare yi ñun daal amuñu wenn yiw yonent bi salaa salaam ne boo demee nee leen leen seen jihaar mi ngi ci ñu topp seeni borom kër waaye wa qalilun minkunna faa'iliin waaye ñu néew ci yéen ñoo koy def ñu ñëw ci yéen jigéen ñi yéen a koy def allahu akbar xam naa ne booba day bu gisoon jamono ji dana doy waar moo tax mu ne ko nanga xam ne jihaaru jigéen mi ngi ci mu topp seeni boroomi kër ñi ngi ci ñu topp seeni boroomi kër ci ludut werante lii ma wax nag wax jii ma wax ne jigéen jihaaram mi ngi ci mu topp boroom këram amul benn sikk sàkka amul benn werante lu wér la lu dëggu la mbokk mi ñu bokk yàlla Cheikh Ahmadou Bamba ba tey mi ngi dénk soxna Penda Joob mu ne ko wa ay suma sawjin rood wa ay suma sawju radiya an sawjatihi radiya anha rabbaha bi nicmati allahu akbar mu ne wa ayzuma zawjun foofi xamee ne jëkkër radiya gërëm na an zawjatihi ci soxnaam ci jabaram soxnaam radiya dana ko gërëm anha ci moom rabbaha boromam ba bi nicmati ci xéewalam dana ko gërëm sottu ko ay xéewalam ko dana ko gërëm sottu ko ay xéewalam allahu akbar wa ay zoma zawjun foo gisee ne jëkkër boroom kër radiya gërëm na an zawjatihi ci soxnaam radiya soxna soosee dana ko gërëm anha ci moom rabbaha boroomam bi nicmatihi ci xéewalam dana ko gërëm sott ko ay xéewal waaye ama isa lam yardo anha abada fa laysa yarda allahu fa laysa yarda allahu anha sarmada ama isa yarda su fekkee ne borom kër gërëmut anha ci moom soxna abadan faw fa laysa déet yarda di gërëm allahu yàlla anha ci moom sarmada faw allahu akbar mu ne ko yow soxna Penda Jóob na xam ne jëkkër borom kër fu gërëme borom kër fu mu gërëme borom këram wa ay suma sawjun radi an zawjati radi anha rabbaha bi ni'amati waaye ama isa lam yarda anha abada fa laysa yarda allahu anha sarmada waaye mu ne ko na nga xam ne feek bépp jigéen boo xam ne sa borom kër gërëmu la na xam ne yàlla du la gërëm te bu la yàlla gërëmu doo mën a texe adduna doo mën a texe àllaaxira kon nañu góor góorlu mu ne ko wal taxlimi na xam bi anna kulla ma sodar naka lépp loo xam ne gongeeku na li xayri wàcci zil jilaali ci lu du jëmmi yàlla fa hëdër loolee day mabbu allahu akbar faali mi xamal yow soxna Penda Jóob ak bépp jigéen bu mel ni yow ak képp ku may diglu waaw ba an na kullama naka lépp loo xam na sadar gongeeku na mooy génn na li xayri wàcc ilaay ci lu du jëmmi yàlla zil jalaali kay boroom màgg gi di yàlla fa hëdër loolee day mabbu maanaam bépp jëf boo xam ne nit mu ngi koy jëf ci jëmm yàlla ji taxul mu jëf ko nee jëf jooje ak lu mu mën di doon jëf jooje dafay mabbu allahu akbar mu del ko wax ne ko faale mii xamal ne ko xamal ne yow Penda Diop soxna Penda Diop laa yan ju du mucc ahadun kenn min azabillahi ci mbugalam yàlla hatta yatruka lu dana dafa bay arbaatan ñeenti yii arbaata asiyaa i ñeenti yëf yii na nga xam ne kenn du mucc ci mbugalam yàlla lu dul na da ngaa bàyyi ñeenti yii mu mel def na ko ban ak ban la mu nekk ko alkasi ba fen képp koo xam ne foo toll da ngay fen di kàcc doo mucc ci mbugalam yàlla ak lan wal kibru ak rëy képp koo xam ne danga ngaa rëy doo mucc ci mbugalam yàlla ak lan wal buxlu ak nay képp koo xam ne danga ngaa nay doo mucc ci mbugalam yàlla wa zuu zanni ak ñaaw njort képp koo xam ne koo gis ci moom rek ñaaw njort ñaaw njort ci moom di ko dëkkal foo xam ne dëkk ko wala nga koy waxal loo xam ne waxu ko wala nga koy foogale loo xam ne defu ko doo mucc ci mbugalam suñ borom tabaraka wa taala allahu akbar mu ne ko ñeent yii nag soo fexee ba mucc ci rek mucc ngi ci mbugalam yàlla alkasi bu fen wal kibru rëy wal buxla ak nay wa suu zanni ak ñaaw njort suñ borom tabaraka wa taala nee na Eh, nee na eh, wala tajassusu bu leen di gëstoonte ndax kat inna baada zanni ismun inna baada zanni ismun lenn ci njortu bàkkaar la ndax dangay gis diw Abdul Ahad njort ci moom lu dul noona te fekk loole nga foog ci moom wala nga jot ko moom nekkut ci moom mu jural la bàkkaar bu la yóbbu sa war a ëllëg ñu ci yàlla musal moo tax mu ne ko feeg muccoo ci ñeenti yi doo mucc ci mbugalam sawara faalami laa yanju ahadun min azabillahi hatta yatruka arbaata ashyain alkazibu wal kibru wal buxlu wa suwu zanni bàyyi kàcc muy fen bàyyi rëy bàyyi nay bàyyi ñaaw njort yan nuñ ci yàlla boole musal kon mbokk mi wasiyab soxna Penda Diop bi fii la yam ndénkaan bi ko sëñ doon dénk kon lii lañ na ci yàlla jot a xamal lu ci jub yàlla la lu ci dëng suñ gàtt xam-xam la aqulu qawli hada wa astaghfirullahu li wa lakum wa sairil muminin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ki leen ko doon leeral di leen ko jottali eh, ñu ngi koy wax Abdul Ahad eh, ubaydu rabbihi jaamu boromam bi jërë ngeen jëf wa salaamu aleykum wa rahmatullah di taaliba Cheikh Ahmed Tidiane Chérif taaliba Cheikh Ibrahim jërë ngeen jëf abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly buñ forlome war ngay sant yàlla ñun lay sigil gëstaloon sidi baram